Basuma Basuma Mbare suko non ko abidé Iba Fall Mané un Sénégal à soumission triangulaire Sénégal aujourd'hui je vais faire live en wolof pour que mbokk sénégalais yi gën a comprendre li ma bëgg waxul leer senegal Afrique ñuy jëm ci loo xam ne élection la ñuy jëm ci loo xam ne changer système teg système la ñu tànn mais man système bi tànk li mu ñu waxoon defuñu ko mooy yee xale yi doog lañ leen yeewi est-ce que dina dox. yee te doog yee wi loolu laa woote woon départ te yéete bi ci éducation bi ñu nekk tey éducation programme bind nañ programme ñu wax ci forme rek kenn du wax ci fond ci forme président bu toog lu tax mënta baax ci gis-gisu askan wi te booy opposé wu askan wi jox la bopp éducation bi éducation bi jàngale bi moo flanché depuis le départ ñun ñëpp ay étranger lañ suñu biir dëkk ñun ñëpp. ñi nga xam ne ñoo war jiite classe politique bi sans exception ay ndoxandéem lañ biir Sénégal éducation ñi war jiite dëkk bépp kan moo ci jàng Sénégal Abdoulaye Wade jàng na lool lan la jàng alxuraan alxuraan dépendance am fan la lan moo ciy Sénégal avocat la avocat ñan ñoo ko bind lan moo ciy Sénégal mathématicien la mathématicien ñan ñoo ko bind lan moo ciy Sénégal lan la ab lay Ablaye du jàng luy Sénégal pour mën a développer Sénégal ak pour mën a changer mentalité sénégalais bi lan ah ñu essayé Macky Sall technocrate la jàng na wante li mu jàng yëpp lan moo ci senegal cursusu su Sall yëpp wax ma ko sixième CI ba terminal ba université wax leen ma lan moo ciy senegal lu Macky Sall jàng à part la Dior Diop ñu ngi ko rey fii Alboury Ndiaye Bour Sine Coumba Ndofféne lan moo ci Sénégal lan Sonko jàng na liggéey na quinze ans mosul sàcc waaw inspecteur des impôts de domaines la waaw mën na changer Sénégal waaw mais li mu jàng yëpp pour changer Sénégal projet bi mu bind yëpp pour jàng Sénégal lan moo ci Sénégal ban làng lañ ko bindee lan moo ciy Sénégal quoi man li may jooy man sama jooyu xol leneen la <laughs> faal révolution bi ma nekk nee naa leen ci révolution laa nekk nekkuma ci activisme nekkuma ci ay dama faral kii déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet <coughs> jàngoo Sénégal li nga bind yëpp ci ay corps étranger ñoo la ko jàngal dans une langue étrangère boo toogee est-ce que c'est faisable par rapport à la mentalité par rapport à l'éducation par rapport à la vie sénégalaise man loolu lay laaj lan mooy Sénégal si lu ñu jàng yëpp lan mooy Sénégal te ñu ne intellectuel yi ñoo war a développer Sénégal c'est archi faux yu Russie pour ñu comprendre dañu xool ne Russie Russie yi jàng corps étranger yëpp maanaam Russie bi dem jàng anglais bu xasee ñëw war di diriger Russie am na tuuti partie boo xam ne nekkatul russe ndax la mu war a gën jiite dëkk bi étranger moo ko jàngal <coughs> sa code d'honneur bu ngay jiitee dëkk bi sa code bi ngay jàngee bu ñu lay taggee yëpp ci langue étrangère nga ko jàngee ci mathématique étranger nga ko jàngee ci histoire géo étranger nga ko jàngee ci lépp c'est étranger amoo dara ki jàng qui te concerne toi le sénégalais tant que amuñu suñu genre doom boobu tant que amuñu suñu doom bu gëm esprit boobu nous ne serons jamais à la hauteur de pays te Sénégal richesse am fu mu toll nii. suñu benn gis gisement de pétrole ñun suñu benn gisement mooy plus de quinze gisement bu libi te seen doom yi da nga daan judd un xale bu juddu de ñu nokk la dix million en attendant sa compte ndax ñoom dañu commencé woon jàng libi Iran génne woon nañ dem Amérique mais da ngay jàng iranien ba fees jàll jàng Iran xam Iran mooy lan ba suufu Iran yow boo laalee suuf si Iran sax boo ko xeeñ nga xam ni suuf si tel raison lu jóge biir Iran kookoy iranien mais ñun Sénégal je regrette ñun ñi di wax ñëpp ñii laay fag ku la ciy wax di la bàkku Sénégal Ousmane Sonko li muy jàng-jàng yéen ñëpp la la leen a duwe jàng na alxuraan alxuraan fan mooy référence am à part Arabie Saoudite lan mooy référence am à les pays arabes li nga jàng ci alxuraan yëpp sa ban maam Sénégal moo ko bind sa ban maam Sénégal moo ko fekkee est-ce que indo yi dañoo basé wu ci alxuraan pour développer l'Inde wala dañu basé ci bible pour développer ind wala chinois yi dañu basé wu ci alxuraan wala bible wala tawraat pour développer la Chine déedéet dañoo delluwaat seeni maam seeni origine ne ñun attends ñun suñuy maam ñu fi nekkee dëkk bi dafa développé kon lan moo tax suñuy maam lu bëgg a génne suñuy maam intégré ay maamu jàmbur dëkk bi su développé déedéet mun ñu nekk dëkk bu gën a riche ba pare pauvre mënut a nekk. éducation moo tax bu ñuy wax si yu bëri mu muuma ci neutre si bu ñuy yuuxu làmb ji mu muuma duma seetaan football par principe. dama mos a am sama idéologie bi ay du ñun c'est anglais bokkuma ci c'est pas sénégalais Pastef ñaari Pastef ex Pastef deux cent pour cent Pastef origine cent pour cent bu état profité seen communication neneen waaw léegi na yaa ñaari Pastef yëpp dem jaxasoo day am par force jël fa décision litige yu bari lay andi ak jaxasi xel yu bari lay indi ak tey wax lii suba wax lee lay andi ku nekk na jël say responsabilité ba fu muy mujjee kenn du sama candidat moo tax foofu buñ ci sax werantee te kenn du sama candidat ku dul Ousmane Sonko bu dul moom du moom moo may wax que ñuy voté ndax kenn du voté éducation ñu ne leen senegal problème bi xeex bi yëpp triangle bi tëj Sénégal pour ma ture triangle la Sénégal triangle Sénégal li muy réeré triangle ak pour lan peuple bi soumettre te buñ fa tegoon ay camp militaire bii heure dëkk bi dinañ comprendre ne xeex mooy defar réew dinañ comprendre ne xeex mooy yore askan boo ne prip ne maa ngi génn Sénégal yor sa oto boo jëmee Casamance fooy génne Mbour Fatick Kaolack Baay Ñas ne la kaay xaalalaahu rasulillahi sallallahu alayhi wa baay laa bopp yëpp fixé bopp yëpp tëj xel yëpp tëj lépp yeew leen ne leen ay jaam ngeen ndax lan ay musulman ngeen musulman day pauvre te l'islam amul dara lu pauvre l'islam dafa sax bañ pauvreté yéen ñu ne leen boo leen pauvre ngeen di tekki di allah ngeen di joxe en avance tëj nañu Sénégal ci fan Kaolack kon xale bale mënul jóge Casamance jéggi Gambie gis nga bu tojee loolu dafay toj islam ndax Kaolack du Baye Niass moo ko tëj au lieu ñu def fa camp militaire au lieu ñu def fa. zone de guerre bu stratégique ndax lan dafa jàkkaarlook dëkk mais déedéet kër kilifa diine lañ fa teg pour lan def fa ay daara tënk xale yi ci soumission daara moom ce n'est rien d'autre que tënk la ci soumission point ñu ne waaw fële Baye Niass dañu def gardien du temple te bàyyi ñes wootee ko ay doomam ay xalif ñëw ko def ko gardien du temple tëjal ko islam bi tëjal ko tubaab bi ndax tubaab moo leen fa teg gën a bëreet di génn Sénégal jëm fan maatam pour dem Wuro Soga xam ngeen ne am na yoon boo xam Thiès ngay waxu romb Thiès jëm fan Diourbel romb Diourbel pour dem Linguère fooy njëkk jot tuubaa foofu tubaab bi xaar bu sëñ Bamba dem le mot xalif fëtul mu ngi ñëw en 1922 sëñ Bamba jour boobu bi muy wax dafa mer ba am ñoo xam dañu jàkkaarloo bëtu sëñ bi bi mu naan tubaab bi bu ma kenn que personne ne redit ce mot que personne sëñ sëñ tubaab il a été clair bu kenn bu ma kenn waxati xalif islam du affaire xalifatul islam affaire bi yonente moo ko fi wàccee point bu kenn comprendre ci affaire lu xalifa ak yooyu dem leen ci livre Masaalikul Jinaan di tax sëñ Bàmba ne la mën nga laal tel wér mën nga laal lii mën nga laal lii l'essentiel lecture cellulaire la Touba foofu ñu xaaroo seen Bàmba dem tubaab ñëw en 1961 pour a du Dia mu autorisé le grand magal de Touba en 1963 defaat fa ay daara tënk xale yeew ni leen foog ngeen arabisant foog ngeen doone arab ñu tënk leen foog ñu nangu ne ay jaam lañ ndax ci alxuraan nit ku ñu jaam la léegi ñun nag ñoo leen di yeewal islam bi bu ñu dëgër def leen ay jaam ngeen di déglu gëmma tëxlu heureusement ko waa Touba sëñ ba am na ñoo xam moom lu ñu topp topp ñu set yeeg njaboot gi mais ba tey rek foofu la ñu tëjee senegal nga ñëwaat Dakar dellu si Sénégal ne damay génn jëm fan Saint-Louis Mauritanie fooy jël à gauche kon gisal boo taxawee Dakar à droite Kaolack au centre Touba à gauche Tivaouane fermé par qui le blanc comment en nommant un khalife général pour lan tënkaat peuple bi foofu à travers quoi toujours rek tubaab li nga gëm la lay fekk rendee la ca ku bàkkoowul xaalu rasulullahi salallahu alayhi wa Sénégal pour ñoom doo nit samay maam ñoom ma gënal ñoom seen maam arab samay maam ñoo ma gënal maamu romain maamu chrétien samay maam man samay maam bambara ñoo ma gënal téeméer yoon yeneen maam yi kooku jeune badine pas là-dessus samay maam joolaa ñoo ma gënal maam yooyu jeune badine pas là samay maam balante yi garde seen origine ak seen culture ñoo ma gënal yeneen maam yi ndax ñoom xamuñu samay seeni maam fan la ñu nekkoon ba ay yonent ñëw ñoom ñu war ñu dañuy topp yonent mais pourquoi ñuy topp seeni maam saa dañ ma yàgg ndax ci xaala rasulullah sallallahu alayhi xaw nañ ma cee rey façon dóor bu nekk dóor nañ ma ko ci dama yàgg cotiser ci lu ma xamul yàgg bokk ci lu ma xamul dañoo tënk réew mi tënk sénégalais yi ba ñoom lu ñu décidé mooy am parce que lan dañ leen tëj ceinture lañ leen def yéen dañ leen ceinturé pour révolter baatin bi ñu tëjee gis nga baatin bi ñu tëjee parce que ñëpp ay participer dóor mu dugg Dakar ñaan yi ngeen di gis président di demantu xool leen président Kaolack Touba Tivaouane ngeen foog ni c'est quoi yéen ñi féete woo nii on vous a ceinturé yéen leneen moo leen di décanté dinaa woo ñëpp ñoom Cheikh Fall ak ñoom ñëpp ndax xam naa ne combat bi ba fu muy mujjee deewoo lay mujjee ndax carte gi tey jaxasoo i deux ans la voté projet de loi budget assemblée yëpp maa ngi suivre bi lépp dem ci dul débat ndax deux ans yi muy voté nii problème la ma def te man def ma wóor ne Amadou Ba du nekk candidat bu naree nekk candidat bakkanam li ñuy jël te moom it ñu ñëwoon deux mille vingt et un Sénégal. dugg si waat nañu pour sécurité moo tax à n'importe quelle heure tension mën na am ci réew mi n'importe quelle heure pour jàppale xale Dakar yi nag ñi ci daan reeñook man may bañ naan leen xeex bi amul lii déedéet léegi foog ma former ñaari bloc bloc saayir ak bloc baatin maire yi wax nañu ba sonn man mi am na koo xam depuis quatre ans ñu ngi ciy wax moom dafa maar ci li muy wax ak man gis na waxuma ci mu génnal boppam ci télé bi non ba ñaari nit booy bu nekk Ziguinchor ak kii Cheikh Fall Cheikh Fall sama sama jàmbaar ji xam naa ne yow ma ah. maama su ma nekkul si yoon wala dem ba gisuma lu ma ko xam lu ma xam dama koy reconnaître man duma nit ñu ngandi ngandi lu yooyu bokk bokkuma ci loolu li ma waxoon ci problème bi yëpp ak fi mu jëm yëpp ak si sarax yi ñu war a def yëpp pour contrer ko ma bañ dama ko gis ne am na parce que toujours dama daan wax ne fépp laay vérifier ci saayir ak ci baatin fépp laa nekkoon fépp mais chaque fois su ma ne Cheikh def nañ lii ci combat bi dañuy xeex mu ne ma nañ ko def ci baatin ma ne ko maa bañ fii laa koy def te damay xeex mu ne ma kenn du yëngu le 17 mu ne ko dëkk bi day tàkk tey mu ne ma dëkk bi du mat 45 minutes ci la ñuy fay coow li te baatin dong lañ koy fayee baatin moo koy delloo si waat ndax dinañ leen juumloo delloo si waat coow li ma weddi ko ba tëdd guddi googu lu ma ko waxul dem ko fàtte mën ne ko ay ngañ dem ba ture ñun ñëpp communiquer di ngeen xam ne communication moo mën fii xeex bi du xeexu baatin foog ñu xeex ko ndekete yoo baatin da ci bokk c'est vrai nag la je reconnais je reconnais yéen yi yéen ñi daan ma woo naan ma Cheikh Cheikh yéen ñi daan ma woo naan ma Mara Niass Mara yéen ñi daan ma woo léegi ñoom ñooñu yéen ngeen di fexe yéen ñi gëm combat bi foofu ngeen def bloc ngeen exploité ko yéen a xam mais man ay groupe de combat laa soxla ndax tôt ou tard ci combat lañ jëm par force dañuy combattre. gars yi dinañ combat de Macky sàll posam bi président africain yi tous ces pères là kenn d'accordu ci posam bi te xamul bu demee ci les quatre P là xamul bu ko jëlul lan lay def te Amadou Ba du candidat am Amadou Ba France moo ko bëgg imposer ñoom maam ñooñu ñoom maam cëngañ cëngañ <laughs> ñoom maam multinational Sénégal ñoom maam ñi seen intérêt nekk ci système bi waa ISEM bi en grosso modo ñëpp ay jëfru ay ma jama jaañ ñëpp a ngi tëb di dal parce que ren di amadu Ba Macky Sall la gars yi Amadou Ba bu leen foog ne yéen yéen li ñuy xeexle amadu Ba de gars yi dafa am beneen combat bu ñuy mëne ñoom seen biir dañu am seen combat moo tax gis nga su ma gisee ñëpp naan Amadou Ba nii ma jëmbal bind livre bi kii déedéet ñoom dañu am combat seen biir pour sauver leur tête ñun suñu combat suñu biir xam nga tey lan la waroon nekk nañ leen génnee Ousmane Sonko ci kaso bi ndax warta tëdd ci kaso bi abunaar félicitation maître man lii laa gëm am na fu muy toll ku nekk jël say responsabilité yow xam nga ne tey Sonko du yoon gisoo dara ñu bëgg leen gëmloo ex ak Pastef origine jaxase carte gi y a pas d'ex y a pas Pastef origine on s'en fout de tout ça man li ma leen waxoon démb laa leen di wax tey Sonko avec lui point moom bu faloo ba pare nag na sénégaliser éducation bi pas alxuraaniser éducation ni christianiser l'éducation négatif mais la sénégalité de l'éducation la pure africanité de l'éducation man loolu laa gëm mais nañu jàng alxuraan diine bi nga jàng ko ba si biir mën a la yee eh, yow jaam nga foog ma libéré la man suma bañee woor foog ma tekki la yow ñu nit ku ñu nga doon jaam nga koy gëm c'est honte on ne demande pas la koranisation du pays mais la sénégalisé ñu dañu bëgg doon ay sénégalais pire ni suñu maam yi daan yoroo bu tubaab ñëw tas ñu ba jël suñu richesse yëpp ak ñu dëkk bi richesse yi dellu see pour ñu réussir contenir suñu richesse bi foog dëkk bi doon d'abord Sénégal mais mënuñoo jàng France jàng Amérique jàng Russie jàng Australie jàng fu nekk jàngoo si réew bëgg ne da ngay développer sa réew am na pétrole yow yaa koy développer sa bopp yow mi Sénégalais te pétrole bi xamoo sax yan région lay jaar pour ñëw xamoo sax suuf si pétrole bi di tege yan oto nga fa war dawal xamoo yan genre pneu oto ñooy daw suuf su am pétrole mbaa xam ngeen ne dafa am pois oto sax yu fay daw ak avion yan ñoo fay jaar ban Sénégalais ko jàng. Macky Sall li muy jàng affaire technologie jàng ko di ndax moom bi muy jàng Sénégal gisuñu fa pétrole ba koy jàngale foog ñu ubbiwaat école jàngal leen te pour ñu jàngal leen foog ñu basé wu ci ay expérience yu Libye expérience yu Qatar ak waaye léegi suufu Sénégal mii di jur loo xam ne Qatar juru ko Sénégal am ne mango Qatar mënul jur mango Arabie Saoudite mënul jur mango waaye léegi suuf soosu di génnee pétrole ak bu Arabie Saoudite bi benn la ba ko jàngu Saoudite mooy ñëw loolu yee eh, le système éducatif révolution lay xeex ku am xel dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bëgg sa réew dëgg dëgg dëgg dëgg mooy àndax man ci combat bi moo tax bu ci dëgg narta lalu rek j'explose na xam naa ne yëfi tubaab liñ jàngoon école li ñuy bëgg a àndiwaat mooy naxante dóorante loolu la tubaab di jàngal tubaab di mos a ànd alxuraan boo ko peer alxuraan du mos a tubaab boo ko peer ñoom ñaar ñëpp nag dañoo ñëw jël suñu lépp moom ko moom sa bopp xam sa bopp gis sa bopp gëm sa bopp mooy développer Sénégal kenn si ñuy intellectuel yëpp kenn jàngu fi Sénégal je défie quiconque je défie quiconque en commençant sur Ousmane Sonko je défie quiconque école kenn amul ci su ñoom école diplôme boo xam ne c'est un diplôme sénégalais ça n'existe pas amul diplôme boo xam Sénégal nga si jàng ça n'existe pas amul ça n'existe pas amul kon nag ñu dundee yaakaar dundee ne projet bi ak anti système bu ñu ko bëgg a defee yaakaar lañ ciy am yaakaar lañ ciy dundee conviction lañ ciy dundee ak don du choix de sacrifier pour la réussite mais éducation tant que ñu ko avec une langue étrangère on va jamais se développer kooku moom man duma ko mës a gëm nit mu ma ko def sama bopp kon jarul naan ma faral kii faralal kii communiquer nii communiquer nee naa leen ci révolution laa nekk basu moo basu moom bare su ko non ko abijee